turu Bamba Diop encore une fois di jéggalu ñi nga xamante ne teew nañu fi di jéggalu ñëpp ci weeru koor gi nga xam ne lañ dugg nii di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla def ñu teewe koy ati ati ati at yu bari ginnaaw kàddu sant yooyu li ñu njëkk a def mooy kàddu ngërëm ndaxte nit ku nekk bu fekkente ne dem nga ba am loo taxawal c'est grâce à ñi nga xamante ni say dëkkandoo wala grâce à ñi nga xamante ni dañ see jàpp ba loolu war a mën a am di ñuy def lu dul gërëm ki nga xamante ni moom mooy suñu maire maireu ginnaaw raay noor ndax olof njaay danaan kuy dugg ci kër ci bunt bi ngay jaaree te boo jaaree ci bunt bi li ngay njëkk def mooy ki nga xam ne mooy borom kër gi nga nuyu ko jox ko waayam sargal ko tatagal ko li nga xamante ne moom mooy suñu yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal di di wax madame la maire ñu ngi gërëm bu baax di rafetlu bu baax sa teewaay tey jii fii vraiment ñu ngi koy rafetlu ak ñi nga àndal ñëpp ak képp ki nga xamante ne teew nga fii aussi ak ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañ ci organisation ndogu bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen sant di wax tamit nag mouvement tax a lu ko tax a jug lenn kese mooy mission moom mooy mu nga xamante ni moom mooy mu taxaw li ñu naan développement mooy suqali li nga xamante ni moom mooy Sénégal suqali nag développement suñ koy waxee dafa am ay voies yoo xam ne moom ay yoon maa ngi jégalu ci kàddu nasaraan bi may wax ndax xam naa ñu fi nekk ñu bëri du leen kii maanaam développement dafa nekk ay yoon yu ñu teg. pour euh, développement boobu mun a ant ci yoon yooyu xam nañ ni bu baax li nga xamante ne moom mooy action sociale da cee bokk xam nañ ni bu baax li nga xamante ni moom mooy agro business da cee bokk xam nañ bu baax li nga xamante ne mooy entrepreneuriat da cee bokk ndax Sénégal kenn ëmpalewul ñu fi ëpp ay milliards mën naa ne ñu si am ay diplôme bariwul te loolu leen ko may mooy entrepreneuriat mouvement tax a jug nag euh, suñu turé président Bamba Diop nekk mouvement boo xam ne moom dafa jug pour jàppale ñi nga xamante ne ñooy askan bi pour jàppale ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi surtout ak jeunesse bi nga xamante ne ñu ngi fii bu si loolu dana dinañ jàppale ñi nga xamante ne ay jeunes lañ pour ñu wan leen lan mooy entrepreneuriat ndax boo xoolee di nga xamante ni moom mooy jamono Abdoulaye Wade ba mu fi nekkee ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku lu ñu naan goana loolu lañ naan agro business maanaam jéem a développé ci li nga xamante ni mooy ci wàllu mbay mais yàlla dogal na plan boobu bañ commencé dem nañ ba ci biir aboutirul ci loolu la Bamba Diop di ay jeunes yoo xamante ni dinañ leen permettre former leen wala ñu mën leen teg ci ay yoon yoo xam dinañ mën a xam nan la ñuy defee entrepreneuriat ba amal seen i projet yoo xam dina leen mën a permettre à ce que am dinañ leen mën a yombalal pour financement projet yooyu ci loolu aussi ci li nga xamante ni moom mooy loolu mouvement takku jug moom mooy ñi nga xamante ni ñu ñooy association yi ñi nga xam ne ñooy groupement féminin yi nga xam ne am nañ mooy ja jàppale leen ba utal leen ay financement mais pour loolu am aussi ku ne xam nañ ñi état bu la joxee financement da lay laaj nga koy fay ay bor mais mouvement takku jug doxaleewul noonu mouvement takku jug lu ko tax a jug moom mooy jàppale association yi pour li nga xam ne mooy développement association féminine bu bu mu nekk bépp bu fi mës a nekk bu fi mu nekk boo amee projet bu leer nañ nga am projet bu leer nañ nga ñëw proposer ko mouvement takku jug incha allah dinañ la financé ci li nga xamante ni mooy te duñ la laaj lenn pour wan leen ni ñi nga xamante ni mooy lu tax a jug euh, mouvement takku jug social kese la nekkul leneen social moo si jiitu. promouvoir li nga xamante ne moom mooy entre et loolu kese la. question bi fixé moom mooy comme ni ma ko waxee rek ci vole social bi ndax li nga xamante ne la projet te def moom mooy li ci gën a ndaw mooy ndogu lii ndogu li fi ñu ko njëkk a defee moom mooy Touba doo ko jóge fa ñëw fii defee ko fi te avant loolu dem nañ fi ba Tamba benn dëkk bi naan naan kanta mu ngi nekk ci frontière entre Sénégal ak Guinée Bissau mu nekk dëkk boo xamante ni doomu aadama yi boo fa demee xam ne ñu ngi souffrir ku wala mouvement takku jóg nekkul koo xam dafa ñam yam si li nga xamante ne moom mooy ville bi kase ñi nga xamante ne ñoo ngi ci àll bi soxal nañ ko ñi nga xamante ni ñoo ngi ci àll bi sonn lool lool soxla nañ ko te incha allah xam naa ni après koor gi am na yeneen programme yi nga xam ne mooy ñëw ci loolu district sanitaire yi nga xam ne nekk nañ fi du ma ne ginnaaw raay du ne euh, Dakar mais dama naan li nga xamante ni soxla nañ ko dëgg-dëgg mouvement takku jóg pare na pour dem incha allah may ay matériel district yooyu noonu. bu paree ci loolu lépp li nga xamante ne moom mooy tey jii ñun ñëpp bett ñu ni ñu ngi jooy les enfants de la rue mooy ñi nga xam ne ñooy lay taalibe chaque fois ñun ñëpp a ngi jooy naan taalibe taalibe yi taalibe yi taalibe yi boo xoolee assise nationale bi nga xam ne mooy waaj am ñu ngi naan taalibe yi taalibe yi mais mouvement takku jóg ci loolu ci lay jéem a dem sensibiliser yi nga xam ne ñooy daara alxuraan yi fi nekk. jëm leen a gën a jox ay matériel jëm leen a gën a renforcer ba tax taalibe yooyu noonu même bu fekkoonte ne dañuy yalwaan ñu si yalwaan duñ bareeti maanaam pour wan ni li nga xamante ne moom mooy volet éducation soxal na ko li nga xam ne mooy volet santé soxal na ko mais li nga xam ne mooy volet entrepreneuriat soxal na moom maa tax a jóg kon donc li ñuy def lu dul encore une fois di wax ni lii ñu commencé def nii lenn kase la ci mais li nga xamante ne moom mooy ñëw mooy di dàq di maa ngi yéen a bokk ginnaaw raay fii laa ci dund yaroo fi màggee fi ba ni ma toll nii lycée Thiaroye bii laa jànge bi ni ma amee bac dem UGB jàng fa ba amee sa master 2 kon donc su ma taxawee man leen lenn li nga xam te mooy développement mooy bu ñu xaar état di ñu jox liggéey wala dara gis nga entrepreneuriat si la lépp xaj entrepreneuriat ku ko mën wallahi yàlla dina la mën a def di nga xamante ni moom mooy sa su ma ne doo réussir à cent pour cent mais boo góor góorgóor ci góorgóorlu bu baax dinga mën a réussir li nga xamante ni ba mën a gérer sa bopp gérer sa famille ci loolu maa ngi commencé guddal te bëggumaa guddal dañuy jox ki nga xamante ne moom mooy chargé suñu communication bu ko defee moom euh, incha allah dina jéem a wax ak ñi nga xamante ne ñoo fi teew euh, jàllale benn message bu ko joxee kàddu gi ba dinañ ko jox ki nga xamante ne moom mooy baylaat ba euh, Abdoulahat wala Sam mu gërëm ñi nga xamante ni ñoom seen i invité ginnaaw loolu ñu jox kàddu ki nga xamante ne mooy suñu madame la maire ki fi teewal maire ñu ngi koy gërëm aussi encore une fois jox ko kàddu gi boo defee mu xool li nga xamante ni ban message lay lancer ñi nga xamante ne ñoom ñooy njabootam laay mun a wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ak goxam incha allah léegi dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy Abdou Lahad. maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp mag ndaw góor ak jigéen maa ngi ñu fi toog ñëpp. dox na man li may wax bëriwul parce que instant bii temps yi dafa xat quoi parce que mara la mer instant bi yaram neexul te instant bi ñu guddi man lu may njëkk a remercier mooy maanaam la mer laa parce que moom. nekk na nit boo xam ne tey jii nii politique boole ñoo moom parce que tey jii fii la dëkk mais tey jii mun naa ne moo ñu yar lépp loo xam ne tey jii bu ko xalaatee la tamay doom rek dina leen jëmale kanam da ciy dox muy suba ak ngoon guddi ak bëccëg kon tey jii mën na ne kooku amuñu fayam mun na lu ñu koy ñaanal mooy tey jii li mu bëgg ci avenir am ak lu mu bëgg ci jeunesse yàlla na ko suñu borom jàppale jàppale képp koo xam ne tey jii nii bëgg na Sénégal dem kanam rawatina ginnaaw raay bi ñu xam ne moo nekk. si lañ nekk tey jii ginnaaw raay nekkoon na dëkk boo xam ne tey jii nii am na bu nawet jotaat nawet bu jotaatoon dañuy sonn yaa ngi dañuy ne fii di ngacc di dugg lu ne ngi suñu yaay ak suñu papa yeeg moom nekk nit boo xam ne tey jii mun naa ne moom jëlee si lu bari tey jii nawet day day taw même pas 30 minutes tey jii doo gis dara dem fii melul woon nii tey jii kenn xalaatu woon na candi dinañ ko defee fii mais lii yëpp grâce am moom la parce que dañuy dem am jaaxle nañ fu ne dugg nañ fa pour teg fa suñu baas amuñu ko. mais tey ji ban ko woowee lépp lu mu jàppoon da kaa bàyyi te mi ngi nii tawat kon tey ji mun na ne kii nii man tey ji moo doon wax si moom tey ji suba ci heure bi fi la may fekk koy bàyyi ak suñu borom rek lépp lu mu bëgg suñu borom suñu borom may ko ma am deuxième mandat yàlla suñ borom may ko ko te gëm naa ne yàlla dina ko may ginnaaw loolu ginnaaw loolu tamit ki xam ne tey jii nii mi ngi ñëw bokk si journée bi kooku tamit dañ koy gërëm parce que tey jii wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara mun naa ne cant yi nu mer den ak déwén nu meren ak daaw bokkul mun naa ne ren gën na alaa daw mi te dañuy ñaan yàlla mu gën a alaa daw te tey ñaan yàlla ñaan nañ yàlla tey ji def loo xam ne tey ji kooku bu ko gisee dineen xam ne ñi dañoo liggéey te yàlla tax ne ko dañuy liggéey ngir leneen ñaan na yàlla tey tey bu ko gisee tamit ñu xam ne jeunesse yi xale yi nekk fii non lu baax rek moo leen ñor daray caaxaan ñor leen bëgg nañ tamit bu gisee lii dina xam ne ñi am nay mag yu baax nekk seen ginnaaw ay mag yoo xam ne tey xam nañ àdduna te ji loolu kon lu ma koy ñaan mooy tey moom tamit lu mu bëgg si avenir am yàlla na ko suñu borom may ba mu mat sëkk li mu yëkkati nii pour def ko yàlla na ko yàlla suñu borom fay xolam mu naan loolu rek laa am lu may wax parce que suñu maral maire bi yaramam neexul di sànni di ñu gërëm tamit ñeneen nii xam ne ñoo nekk si cant ji parce que tey ji nii café gi gars yi fii nii métti woon na mais mun naa ne lu metti du yàgg mun naa ne tey ji jeex na ba pare léegi lu ñuy ñaan yàlla rek tamit yàlla may ñu fekkee kenn ku si nekk li nga nekk suñu borom yokk ko ba déwén tey ji tamit nga mënoon rek nga mën lu ko raw loolu rek laa am si lu may wax maa ngi jégalu ñëpp. incha allah dañuy jox ki nga xam te mooy bëgg fàllu mu wax ci tur yi nga xamante ne mooy jéem a. auzu bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonant bi sant sunu ñaari wayjur ñu ngi sant Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasoul. ñu ngi sant Serigne fàllu Mbacke moom mu ñu dooleel kàttanal ñu yal na nu yàlla fayal Mouhamadul Fadal jërëjëfe maam Seera Fall jërëjëfe maam Seera Fall jërëjëfe maam Seera Fall maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog ci jataay bi ndax samay mbokk nawle jigéen lañu maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen balu ak di leen baal ah, di nuyu madame la maire nuyu ma ko ngir jëmmam li mu toog nii dama ko nuyu ngir cër bi ko ko yàlla jox parce que loo bañ lëg-lëg na ko nangul gàtt geenam Njaay maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm parce que man boo jàppee sama rakk yi rek mel na man nga jàpp te man Njaay am yéenoo ma la dara lu bon lépp lu ma la yéen lu bon rek yal naa sa jiitu man sama xool bii fooy balance moo ci nekk man Linguère pur la yéenoo ma kenn lu bon xëy na yaa ngi may xool fenn foo xam ne nii il faut ma wax ko nekkuma foofu barke ji Fàllu Mbàkke li ne sama xol laay wax du ma tirsee su ma moon sama carte yi tey di woote du ma la wooteel dëgg yàlla du ma la wooteel dëgg yàlla mais lu ma la yéene yàlla naa si judd yàlla na nga yeggale sago bu yàlla dogalee nga nekk ñaareelu mandat yàlla na la jik ci barke Muhammadul Fadilu du ma ko jéem géñee lu ma lu nekkul ci man su ko naree jéemee lu nekkul ci géñee lu nekkul ci man damay woor ñetti fan jéggalu ko yàlla sunu borom ndax Muhammadu Fadal tedd na tedd goo xam ne ni kenn du ko géñee lu du dëgg te lépp lu ma ko géñee rek dëgg la ci man dëgg rek moo ne si man parce que dama di lingeer pire kenn du ma jam moo tax kon njaayam yal na nga yeggale sago lépp nu ma yéenu ci lu bon rek yal na këpp sama kaw man njaay ci barke mu Muhammadul Fadilu laa lay gëñal man ginnaaw yàlla nag maa ngi nuyu sama rakk yii nga xam ne nii ñoo ma cëral ñoo ma dooleel ñoo ma kàttanal man mën naa ne koñ bi aw ma fi noonu ñëpp ma bëgg barke sëñ Fallou ñëpp laa bëgg ba ma kenn sut sama rakk yu góor yii bootu nañ sama ginnaaw sikk naa lool waaye ànd nañoo man sama sikk bëgg nañ ma torop duñ def lu ñu ma boolewul kon nag maa ngi ñaan Serigne Touba mi ñu boole sëñ Fall doo nga tax ngeen jàpp ma nag man xam naa loolu Mouhamadou mooy jàppal nit boppam man Mouhamadou moo ma téyel boppam moo ma defar ba ma baax mu teg ma seen biir moo tax ngeen cëral ma def ma jawriñ kon maa ngi ñaanal sama rakk yi lu ngeen man ren yàlla ngeen man déwén lu ko ëpp maa ngi ñaanal sëñ Bamba Diop mii mouvement takku jóg moom tamit lii mu commencé yal na ko commencé ak bisimilahi rahmaani rahim eggale koog alhamdulilahi rabil alamin ci barke Mouhamadul Fadilu Mbàkke maa ngi nuyu sama mbokk jigéen ñi nekk ginnaaw raay fii yi fii kenn mu leen fay parce que genn jigéen rek mënu liggéey liggéey bi yëpp suba ba léegi lu tolloog ay juróom-ñaar fukki ginaar lu tollook ay ñaari cinquante vermicelle man dong mun ma ko liggéey samay mbokk jigéen ñoo si jàpp ñoo ñu jàppale dooleel ñu kàtt nañu ba tax ñu mën a liggéey kon nag maa ngi sant ñëpp di ziar ñëpp di ballu ñëpp ak lépp lu ma fi wax nag muy lu juum rek na ngeen ma jéggal baal ma xam ne nit moo matul maa ngi jégalu ñëpp maa ngi ball ñëpp ak topp ma kenn dara yàlla bu ma kenn topp dara ci barke Mouhamadul Fadal Mbacke. ñu ngi remercier ñëpp encore une fois di gërëm ñëpp ñi fi teew encore une fois ñëpp ñi si jàpp léegi sans tarder dañuy jox ma la maire kàddu gi incha allah mu am lu mu ci si barkeeloo. asalaamaaleykum. voilà asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant voilà ma bala maa commencé damay jaajëfal sëñ Xaadim sëñ Xaadim dafa ànd si staff bi di fi liggéey liggéey bu leer liggéey bu dëggu si kàttanu yàlla nag yàlla baaxee ñu ko. ndax mu ngi ñëw léegi si biir waxtaanam yàlla dafa def nag mu ñëw fii si mango yi te nag am fi cër ndax boo demee ba am fi soxna loolu mooy ne ñibbisi nga moom moo waral léegi si délégation bi ñuy ñëw fii ñu ne ko ah si xale li lañ jëm mu ne il faut ma dem fa bàkkeelu nuyanteeg ñoom ndax nag lii tax ñu def ko dañ leen di ñaax pour ëllëg ndax nag day dem di waxtaanal ñeneen ay association te war naa ñëw fii waxtaan ak yéen moo moo waral ñu indi ko ndax nag dañ naan li mu saf ki ko mëcc rek moo ko xam bu may ñëw bala maa commencé damay présenté délégation bi ma ànd maa ngi ànd ak Mame Marie Mbaye nday euh, Thiam Ndeye Mané Diouf Ndaw ak Kumba seen sëñ Xaadim moo daane léegi dañu fi ñëw si lu am solo su ma nee am solo mbégte lañ fi ñëwee tey mbégte boo xamante ne wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ndax nag ñi ñu fi woo nii suñuy ndaw lañ ñoo bokk lépp ñoo bokk ginnaaw raay euh, bàyyi laat mu ngi koy wax léegi nee nañ bu ñuy ànd di liggéey kon defe naa boobu mairie sax amul ñooy dugg si ñax yi ñooy dugg di set setal mais ñooy dugg ngeen di def si social di ñëw di dimbale ñi nga xamante ne ndox bi da leen sonal loolu man mi toog maa ko mën a seede kon yéen liggéeyu leen liggéey liggéeyi ngistal fii ngeen teg seen tànk nag foofu la yal na leen fi yàlla jàppale damay ñëw si waa mbaar mi su ma ne mbaar mi damay cité ku mel ni Mouhamed Diouf mi ma jàkkaarloo ku mel ni Lat Diallo mais ku mel ni Tamsir Ibou laay ndax nag ñoom dañoo nekk doomi gox bi ba pare daal di ne bu weer koor bi jotee dañuy ubbi sunu mbaar di barkeelu loolu yëpp yokkute la ndax nag booy génn si douze quartiers yi xale yëpp kenn doxeetul dematul fenn ku nekk ngi teg sa cini kafe di barkeelu di joxe ay ndogu dama ne loolu yokkute la te bu ma sañoon tey ji dañ naan ginnaaw raay gépp dañ koy def euh, kon ñu ngi leen si sant di leen gërëm su ñëwee bañ ne tey ngeen di def li nga xamante ne moom mooy seen ndogu pour tëj mbaar mi dañ leen di ñaanal yàlla ngeen tëj ko si alhamdulilahi rabbil alamin bu jotatee it ngeen ubbi ko si bisimilahi rahmaani rahim eh, ñun yéen lañ am bu newul mairie bi tey yéen lañ am yéen yéenay sunu Twitter comme ni ma nekkee seen Twitter jëwriñ wax ko léegi eh, damay ñëw léegi si seen ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen partenaire Bamba Diop Bamba dama lay yóbbante yow sëñ Tafa ne sëñ Bamba yëg nañ ay jëfinam yëg nañ ay taxawaayam mais yëg nañ it sociale bi muy def ndax nag xale yi di Sam Ndiaye di laat lépp luñ dugal seen loxo ñëw nañ ba sama kër waxtaan ceeg man te kii nga jàkkaarloo nii présidente union réseau de femmes de Guinaw Rail Nord nga jàkkaarloo en tant que actrice développement tey la politique neex ndax tey la politique ma dugal si sama loxo xaw ma lu dul développement kii ngay waxal nii di Fane bokkul benn parti parti bi ma bokk mooy luy développer sama commune te lool lay dox loolu lay wax ku ma gis moom nga ma giseel barki démb bi ma toogee ak Marième Faye Sall dafa ma ne ma madame la maire Fane lan mooy sa fort ma ne ko sama fort mooy développer sama commune ndax nag man awma lu dul commune Guinaw Rails noor ah léegi nii sama frère sama rak sama doom mu ngi koy wax mais tey la ginnaaw raay neex te dañ si sant yàlla bu baax nag ndax nag kii nga xamante ne moom lañ dënk maire bi muy Pape Ndiamé Dieng bi mu fiy ñëw 2004 ku nekk gisoon na li ci ginnaaw raay noor lëndamoon na bari na ndox bëri na leneen tey jii nag man duma jey kenn ku def dama la naan def nga Pape Niamé dafa liggéey ànd ak estafam ñu changé commune Guinaw Rail Nord loolu lañ fi gis man duma ma kenn mais dañ lay yóbbante si ki nga xamante ne moom mooy monsieur Diop Bamba Diop ndax des fois dama naan njóobeen bu muus moom gisuma ko fenn mais njóobeen bii moom soo demee nga ne ko sa kal ñu koy wax madame la maire Fat Ndiaye nee na sa buur fi nga teg sa loxo foofu la ndax nit ki nag boo koy dimbale da koy dimbale ca li mu soxla nekkoon ne commune Guinaw Rails Nord ubbil nañ ko sunu loxo ubbil nañ ko sunu bunt gëmuñ lu dul lu ñu développé xam nga léeg-léeg damay nekk di coow ma ne Sam liggéey leen seen bopp tranquille yow ak laat ndax nag fi mu nekk nii boo toogee sol sa sagar lañ dul wax si yow mais d'accord tey jii soo ñëwee pour développer sa gox ñu ngay yuuxu ndu t-shirt yaa nga sol ñu ngay yuxundu saag ba nga gàccoo dama ne ñi koy def dañoo tardé ndax nag fii bu ñu sañoon ñu am fi fukki ministre suñu sañoon am fi juróomi député avancement kan la avancement ginnaaw raay noor la kon bu ñu gisee partenaire boo xamante dafa ñëw pour suqale ginnaaw raay noor dañuy ñëw ubbil ko suñu loxo ubbil ko suñuy bunt ne ko commune baa nii loolu laa doon yóbbante si sama waajoo di sama njóobeen bi di sant ñëpp nag di sant ñëpp ndax su ma santé maa ngi njëkkee si soxna Mbayang soxna Mbayang ñu ngi koy wax léegi jëwrin man mii jëwrin laa koy wooyee ndax nag tey jii wallaay ragal féete day xañe wërsëg ragal féete day xañe wërsëg soxna Mbayang man awma lu dul xol bu sedd guy si yow ndax nag su ma gisee ngay tetee samay ndaw di ànd ak samay ndaw damay kontaan si li nga xamante ne moom mooy sa taxawaay te ku la gis ngay dox te xam ne doxani Baay Faal ngay dox ànd seeg ñi nga xamante ne samay doomu ndey lañ ñu ngi foofu ma romb léegi di leen nuyu ñoom ñëpp bépp jigéen bu fa romb bu fa nekk toog maa ngi lay nuyu ay sa ay sa naar festival ñoom ndumbe ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ndax nag dërëm bi ñoo bokk benn gaal gi ñuy roote bu soobee yàlla ñun ñooy àndandoo si lépp eh, damay ñëw jeexlu ndax dañ ma dee léegi ne ma doomu bàyyi sëñ Habib man lu ma am sëñ Habib mu sëñ Sidi Makhtar yàlla na ko fi yàlla yàggal dañoo échange lu bëri te li may wax sama staff bi xam nañ li may wax dañ may invité chaque jour ñuy dem HLM ñuy defante lu baax may dem Touba ñuy defante lu baax des fois samay mbokk Baye Fall yi bu ñu ñëwee damay la naan bu ma neexoon de tooñ leen ndax man mi dem dañ ma seexal mais nag ñëw si liggéeyu bàmba gi moom ubbil nañ ko ñëpp ku bëgg ne koo ku bañ ne koo te ñun nag Bamba la ñuy nooyee moom lañ yàlla nañu si yàlla bàyyi xale yi organise lii ñooñ leen di ñaanal yàlla ngeen di organiser waat yeneen programme yeneen programme kontaan nañ si seen taxawaay fii si koñ bi ndax nag bu ngeen taxaw woon neneen ñun ñooy sonn mais nag yéen a ngi xool loo xamante ne moo neex yàlla ngeen di ko def beneen bi may mujjee laat lundi nag maa moomee dama koy jaarale fii nag muy seen information boo xamante ne bëgguma ma jóge fi ñu ne madame la maire kat yëguñu woon man miir may tëj ndogu yi lundi bu soobee yàlla te fii nag lay baasi si yéen ànd seeg waa Nestlé ànd seeg waa Nestlé dinañ tekki baas bi sax ndax waa Nestlé ñoo ñëw baasal seen bopp defaral seen bopp lépp di leen invité encore te leen wax ne ndogu li seen ndogu la bàyyi laat da yàgg ak man yàgg Sam Ndiaye mii ku bëgg li yàlla dogal da ngay sa xol mooy jeex fii ñun lu ñu développé sunu commune la ñuy wër kontaan naa si seen taxawaay yal nañu yàlla defal jàmm sama jëwrin mii kontaan naa ci moom ndax nag li muy wax rek si moom la nekk tey jii man yéen yéenay sama tiitër yéen yéenay sama doole defe naa buñ doon wax ginnaaw raay dañuy xool si yeneen anam mais tey ku dugg ginnaaw raay dañ ñu respecté loolu nag ku ko xeex yéen la man la ak jeneen yàlla ñu yàlla jàppale li ñu bëgg sunu ginnaaw raay gi bu émerger ba ci kanama kanama kanam ba mel ni almadi yàlla ñu yàlla defal jàmm wasalaam merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax di commencé ci nuyu bi honorable eh, soxna si eh, jiite mairie bu koñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax eh, di ko sant itam ci taxawaay bi ak liggéey bi muy def ci koñ bi. di nuyu bu baax euh, sama mbokk euh, Baye Fall yi nga xam si ñoo organisé ndogu bi waaye di nuyu itam waa koñ bi yëpp ñëpp ñi xam si ne jàpp nañ ci liggéey bi di nuyu itam sunu yaay nga xam si mën nañ wax moo waral lépp di euh, soxna Anta Diop ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal bu baax a baax sunu teewaay fii nag du leen lu dul dañu fi yebal en tant que chargé communication bu mouvement takku jóg ñu mën a wax tey mouvement national la Eh, te sëñ Bamba jiite ko ñu teewaayal teewal ko fi tey dañ ne woon sax du ñu jël kàddu ndax kàddu yi fi dégg yëpp doy na te lott nañ tamit di fi jël kàddu warut sax ci ñun ndax suñuy kilifa rek ñoo fi nekk yàlla xam na ne dama ne woon duma ma ci wax moo tax ñu doon organiser bëgg rek lépp jaar yoon ndax am na solo man dama koy rafetlu bu baax a baax a baax donc di wax ne mouvement takk jóg comme ni ko ñëpp waxee mouvement social la waaye itam développement. Euh, ñuy am te di ñaan ñëpp di wax ñëpp ñu ñëw ah, bokk ci surtout jeunes yi surtout jeunes yi ñun ci loolu lan xam muy ñun ay acteurs de développement lan malgré euh, jàngalekat lanu nekk tamit journaliste waaye lépp loo xam si développement la ci Sénégal dañ ciy dugal suñu loxo moo tax bi ñu sëñ Bamba woowee amuñu sikki sàkk dañuy ñëw bokk ak moom liggéey bi te jaral na lu ne comme ni mu ko waxee tamit mouvement takku jóg dafa jóg pour un Sénégal meilleur donc Sénégal nag. yaa ngi fas yéene liggéey pour Sénégal jëm ca kanam donc loolu dañ ci woo ñëpp surtout ndaw ñi jigéen ñi ñooñu lañ ci gën a woo di wax ne euh, euh, madame la maire euh, ñi ngi wax ne mouvement takk jóg tàllal na la suñuy loxo fas yéene ànd ak yow liggéey ci muy développement comme ni ñu koy defee Touba di koy defee Ziguinchor fépp. Euh, noonu la ñuy continuer di ko def bu yàggul rek barki démb ñi ngi ko doon defee euh, Kër Sëñ Ñaan ci ndogu collectif te noonu la ñuy fa yéene di ko def ci développement euh, taxaw itam gox goxaan yi surtout ndax soxla nañ ko lool tey damay jàpp ne bu buñ bëggee développer Sénégal faaw ñu reculer un dem ci fi nga xam si ne tey ñoo ko yàlloo muy gox goxaan yi ñu taxaw leen ca li nga xam si ne mooy seen i mébét lan mooy seen i mébét bokk na ci njàng ma ku wax développement war nga wax éducation surtout Euh, ci euh, hôpitaux yi taxawu leen waaye itam li ëpp solo itam muy euh, këru diine yi muy jàkk yi ak jumaa yi ñu fexe ba jàppale leen loolu tamit bokk na ci yitte mouvement takku jóg fexe ba defaraat jumaa yi fexe ba tamit taxawu sëriñ dara yi bokk na yaakaar naa loolu bokk na ci li nga xam si ne mooy yitte sëñ Bamba loolu bokk na tamit ak ndaw ñi surtout tamit jigéen ñi muy wàllu financement taxawu leen seen i projet ba nu mën a mënal sa bopp dama jàpp ne tamit nit ki boo koy eh, jàppale eh, da nga koy fexe ba mu mënal boppam loolu bokk na ci maanaam lu mu yëngu nga dem jàppale ko ca te ku jàppale jigéen ñi jàpp yaakaar naa da nga jàppale ndaw yi parce que ñoom ñooy lépp donc di waxaat daal ci turu sëñ Bamba ci turu mouvement bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax tamit big euh, moo ñu ngi koy sant bu baax moom tamit ci taxawaayam di sant bu baax big pato autant pour di sant bu baax tamit sunu jëwriñ moom tamit wax dëgg yàlla di ko sant bu baax di euh, Touba Argentine TV depuis booba ñu ngi ànd ak moom liggéey bi te incha allah dañuy ànd ak moom di liggéey saa su ne ci euh, programme yi mel ni ndax mouvement takk jóg moom comme ni ñu ko waxee euh, dafa jóg te day dem incha allah di tàllal loxo ñëpp ñu jàpp ci euh, di gërëm ñëpp encore une fois di jaajëfal ñëpp di tuub bu baax a baax nag ci kaddu gi nga xam seen jël noonu ko waaye di muy ndigal ci ñun waaye yàlla xam na ne bu fekkoon ne man ko bañ a jël duñ ko jël ndax suñuy kilifa rek moo fi nekk balaa ñu kii nag faw ñu xamal nit ñi kan mooy sëñ Bamba Diop digganteem sëñ Bamba Diop digganteem ak euh, comme ni ko soxna si waxee sëñ Sidi Mokhtar digganteem itam ak sëñ ñaan digganteem itam ak fi nga xam si ne mooy euh, gox bi ñu nekk donc dafay baax nit ki tamit booy ànd ak moom di liggéey fa yéene jàppante moom nga xam moom mooy kan ba mën a gën ka gën a mën a lëkka lëkkaloog moom ci li nga xam si ne mooy mébétam di li nga xam si ne rek mooy un Sénégal meilleur di ci talalaan loxo ñëpp encore une fois ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërë